biir liggéey la ay dund ñoo set si ma day liggéey boo xam nga dañuy fëgg bunt ko xool ko ba xam ak Salam Vision tey ci biir kaddu askan wi dellu siwaat ci seen beneen jotaay euh, lépp itam ngir jagleel ko askanu Sénégal yoo xam ne saa su ne ñu ngi ñuy topp dañu bàyyi xel ndax li biir liy xew ci biir réew mi ci biir gox yi ci biir goxaat yi saa su ñu indi ko dinañ ko dëgtal lépp rek ngir bëgg maanaam mënu mu gën a yaatu gën a fees tey nag ñu ñëw fii ci biir banlieue bi ñëw ci foo xamante ni tam moo dëgg yàlla kenn dootu fi présenté ndax bu buñ nee golf suñu xel day dem ci ñu bëree bëri waaye ñu am fi tam ay waajur yoo xam ne ñi ngi fi am fi ay am di jàmm ay kóllëre rek ñu tam bëri ñoo xamante ni saa su ne dañu séq ak ñoom teraanga séq ak ñoom tam ci wàllu liggéey bu yaatu yaatu waaye fenn fi ñu ñëw ci biir golf day kenn koo xam ne day suñu waajur doon tam waajur ci biir gox bi ndax maire di bali njaboot la yaayu daara la macha allah doon tam koo xam ne daal li ñu ci mën a wax lépp macha allah bëri na waaye ni ñu def mooy dañuy daal di nuyoog moom bàyyi ko mu nuyoog askanu Sénégal rawatina suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci jamono bi kon soxna ñu ngi lay nuyu di la ziare bu baax a baax Seck di la dalal ci biir jotaay bi tam macha allah. asalaamualeykum yaa rasulullah asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ziare yéen ñëpp di leen déglu mm-hmm. di nuyu waa Salam Vision ci barke laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin di nuyu tout diaspora bi yëpp maa leen di nuyu. di nuyu tous les autorités. Mhm. waaw di nuyu sa compatriote yi nga nekkal yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Mhm. waaw ngeen ñëw tey fii nii ci golf mhm. xam ne ay euh, batant ñoo fi nekk. ay femmes ñoo ay femmes yoo xam ne ni tooguñu benn yoon. danoo takk seen ndigg bu mu dëgër. jug di liggéey ñun tey jii nag ñun jug nag waa association ndimbali njaboot ji. dañ ko def njaboot yi yëpp bañ a sonn jug biñ ko jug dañ ko jug pour ñëpp bàyyiwuñu kenn pour jàppale bépp njaboot tey jii njaboot bu am tey xew baa mu am dëj baa mu am mariage ñun tey association ndimbali njaboot dinañ jub dem jàppale la si suñu kéemtalaay kàttan waa ñu siy woo nag autorité yëpp bàyyiwuñu kenn waaw ñu siy woo suñu autorité yëpp bàyyiwuñu kenn waaw di ko tàmbalee ci sunu leader suñu doom suñu xarit mm-hmm. waaw muy Wally Seck waaw ñëw si sunu fidel mm-hmm. di Alioune Sall waaw di ko ziar bu baax di ko bëggee baax Alioune Sall ndaxte ko mën a dimbale ay nit la mm-hmm. di ñëw si sunu femme ministre de la femme et de l'enfant Fatoumata Néné Tall waaw di ziar ñëpp di bëggee ñëpp waaw nu kenn nag ndax bu nu tuddee wàlli rek tudd nañu Bougane Dany tudd nañu Youssou Ndour tudd nañu El Hadj Ndiaye waaw tudd nañu ñëpp même Bougane Zélie tudd nañ ko waaw Amadou Fall tudd nañ ko leader la fii day jàppale nit ñi daan jox ay billet maa ko wax dëgg neex yàlla mhm. ainsi que Lat Diop mhm. tudd nañ ko moom tamit waaw di ko tàllal suñu loxo ci association di leen tàllal suñu loxo ñoom ñëpp ci association ndimbal njaboot gi parce que ku ndimbale njaboot gi rek dimbale nga tout tànk yi dimbale nga doom yi ndaxte am na siy njaboot yoo xam ne ni tey jii bu ñu añee du ñu reer baa bu ñu reeree du ñu ndékki ba ay 4 yàlla indi leen fa benn bool ñu këllamtoo ko daal di toog kon nag tey association bi looloo ko tax a mm-hmm. xaaruñu ci kenn nag ndax commencé nañ ko depuis quatre vingt dix ma doon dem avec mon propre gré mm-hmm. tey samay doom yu bëri dima si jàppale waaw mm-hmm. yow mii tey jii sekk si nga naa fekk si nga ma fi ba taay waaw nekk ak man ci liggéey boobu ba tey jii nga ñëw di ma introduire nii amaa mii toog tey jii fekk si nga ma fi ba taay ba ma ànd ak moom ay sorti yu bëree bëree bëri daan naa def njaboot bu xewle ma gàddu sama paanu glace ak la ma am boole fi mhm. bu ngoonee ma sañ ba rafet daal di gàddu sama deux mille francs dem fekk la jox mhm. léegi nag association bi law naa lawa lawa law ba yegg si ba fii mhm. ndax tey jii sama secrétaire dafa am empêchement rek moo tax muy jey na ba jaawo waaw Fatou Gueye mu ngi fi ñu koy wax euh, Fatou Gueye mu ngi fi waaw ah, maam mi ngi fi waaw Lili Jaw mi ngi fi waaw Mimi Gueye mi ngi fi Ndey Mari Gueye maam Fatou Gueye waaw Ndey Roqaya Gueye waaw Grace Gueye ñoom ñëpp ñu ngi ci biir association bi macha Allah avec tout l'ensemble de l'association mhm. nous on s'y met à notre suñu doole la ñu tey nag bi ñu demee dem a dem ba yegg si fii mhm. ñu ne nag lii nag nañ ko siiwal mhm. bu ko defee nag autorité yi mun ñu jàppale mhm. te bu boobaa lépp lu mun te dimbale dara du leen ci um ndax fépp fu nu mun ti dem dimbale fa njaboot ñoom dinañ ko yëpp ndax tey jii yow mi di toog sama doom baay bu keroogee dinañ ànd ak yow duñ ko filmé te di leen ko yónnee ñoom ñëpp képp kuñ fi lim fii ci leader bu boobaa yow di nga jot ne man mii Adja Nadi Diop Seck dëkk Golf mhm. nekk la présidente de l' association ndimbali njaboot gi mhm. dugg na fii dara du ñu ci yéen mhm. ndax duñ koo jug rek ngir yàlla ak yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam jugewuñu ko pour puuk rek jugewuñu ko suñu bopp dañ ko jugee pour njaboot yëpp xam ne ne ñun danoo am njaboot ndax si suñu biir dañuy jàppalante kon nag buñ ko yaatalee mën a jàppale ñeneen ñi nekk en dehors sax si suñu gox yëf yi day gën a neex. ndaxte ku dimbale njaboot rek wàcceel nga ko coono bu jeex. am na si njaboot yoo xam ne ñu ngi fi. Mm-hmm. problème loyer dina leen jàpp. Mm-hmm. ba ñu bëgg a fay seen loyer mu gi agence bi daf leen di génne ñuy tontalaat te mu ngi fi. Mm-hmm. benn rek maa ngi moom barki démb. fi mu nekk le 10 septembre bii lañ ko jox. rendez-vous. ne ko bu leen mu génn. moo délai moo tax nag tey jii nag ñu jub nag déclaré nag. wax ko autorité yépp ñu a jàppale association mm-hmm. ndimbali njaboot ci mm-hmm. suñu logo dinañ ko génnee lancé leen ko ci yéen ñëpp mm-hmm. di ngeen ko gis suñuy carte de membre dinañ ko génnee lancé leen ko yéen ñëpp ngeen gis ko te carte de membre yi wax dëgg neex yàlla duñ ko joxee loo xamee ne dina metti doomu aadama waaw nee na ñu ngi signe symbolique lay doon daal symbolique signe lay doon te ñu ngi koy lancé pour ñëpp nag autorité yëpp dalee ko ci Alioune Sall ba ci autorité yi ñu tudd yëpp. Mhm. bàyyiwuñu kenn ba le président de la république sax monsieur Macky Sall. avec sa brave femme. Mhm. Marième Faye Sall. la digne femme. Mhm. femme bi nga xamee ne ne saa yu déggee njaboot yi sëkkat. jug na dem jàppale leen. mu sàkku tamit ndimbal ci moom. mu jàppale association bi bu baax a baax a baax. incha ko sàkku ci ñi fi tudd ñëpp. ñëpp ñu ngi koy sàkku ci ñoom. di ñaan yàlla nag yàlla jàppale na. ba lii ñu sumb nii mhm. ñun ñëpp ak yéen ñu bokk ko ci jàmm ak salaam sumb ko ci bisimilahi rahmaani rahim mhm. yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin incha allah ni nga ko waxee rek faw faw faaw loolu dana am ndax bu ñu xoolee fa mu tàmbalee moo ndax loo xamante ni mën nañ ni ci ci ci ci lu tuuti la tàmbalee woon ci lu tuuti waaw noonu lañ ko mën a misaale ngir nit ñi xam li ñuy wax maanaam ba tey ji mu yegg fi mu yegg ni ba yéene ji nga am tey ji mooy adduna war nga képp kenn ku ci ne teg ci bëtam gis jëf ji nga xam ne yéen a ngi koy jëf donc kon loolee fi ni daanaka moo tax ma am njottu gu rafet ak yaakaar ak xel mu dal ni xëy na insha allahu rabbi dana dana fa ngeen foo ko ci xalaat rek foo ko natt rek jàpp naa ne dana dana dana dana dana ko weesu ndax loo xamante ni ci ci ci ci benn la tàmbale paanu galaas nga yëkkati yëkkati sa 2000 francs teg ko ci ne ko maa la ko dimbalee sa xel tey jii ampleur boobu dem na ba ñëpp di ko soow mm-hmm. man su ma génnee sax mm-hmm. dan naan ma yaay glace yaay glace ndeysaan yaay ji nga xamee ne ne bu génnee saa yu déggee ne nit xewle na sax mm-hmm. ba ci daara yi ndeysaan ba ci daara yi ba ci bay bàyyi faal yi nga xamee ne ne léeg-léeg ñu toog di def ay zikro la dama leen fay fekk ak paanu glace fekk leen faat kilo warga mhm. mbaa ma fekk leen fa kilo kafe euh, mhm. ak suukar jox leen mhm. yëf yi gën a neex macha allah ndaxte fii Golf Dieng xam ngeen daara yi bari na fi macha allah te j'en ai sept daara yoo xam ne mi ngi fii daf leen ne fu ci ne sa jëfang fay dem te fenn fu nekk sama jëfang fay sans pour autant compter ci jamono bi ñu toll ak situation bi réew mi toll mbënd mi ñëw daal dalaat ci kaw askan wi fi mu nii yaa ngi koy wax léegi ki nga xam ne dernier délai bi moom le 10 septembre la nga xam a ci des waaw donc kon xam nga li si des bëriwul non fi mu toll kay <laughs> fi mu jëm kenn fukki fan ci des ndax fi mu ñu ngi ci jeexitalu weer bi mangoo waaw te léegi fi mu nekk nii tey jii bu doon suñu sago tey jii nu am luñ ko jàppale ba du te looloo tax ñu gën a jug nag mhm. di sàkku ndimbal ba mhm. képp ku dégg sunu lii mhm. ngir yàlla war a sóoli ci kàttanu yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa ngi la koy ñaan ci barke yonente bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ci autorité yu ñu tudd fii yëpp ba ci maam biram ba ba ci maam ibra ba maam ibra ba nga xam ne ku ñàkk ki ñaan la ànd ak Fatoumata Nenetaal nekk ku ñàkk ki ñaan ba ci maam ibra ba ñu ngi koy woo ngir yàlla war a sóoli nu jàppale nu ba ñi nga xam ne dañoo am problème luwaas mm-hmm. ñu mun leen a jàppale mun leen a dimbal mm-hmm. te dara nag du leen ci um mm-hmm. ñoom autorité yooyu lépp lu ñuy defal doomu aadama lépp lu ñuy defal koo xam ne ñu ngi koy dimbale dara du leen ci um waa vision sal waa waa Salam Vision dinañ leen ko yónnee si seen i portable yónnee leen ko si seen i whatsapp ba ngeen xam ne ne di ngeen ne ah association bi kat jug na dem na dimbale léegi moom kay lu ñu jëfin noonu incha allahu rabi dinañ ko couvrir te ñu ko maa ngi koy wax léegi nii dinañ ko dugal ci page Facebook séance bi dugal ko ci Instagram bi dugal ko ci Twitter bi dugal ko en même temps ci YouTube bi ndax fi ne visibilité bi nga xam ne tey jii fi mu ne tey visibilité bi ngeen war a am tey jii mooy réseaux sociaux yëpp ngeen ko war a accaparer accaparer ko mooy fësal ci li nga xam ne yéen a ngi ko def ndax loo xamante ni bi ngeen koy tàmbali xaaru ci kenn dema dema dem ba yëfi ëpp leen doole ngeen sàkku ndimbal ngir mu gën a yaatu kon loolu leen jottu naa ne tey jii ni nga ko waxee sànq en commençant par le président de la moo ci war a waaw première dame waxaale wuñ ko. ministre yi wax ñu wax di ko gërëm bu baax. voilà di ñaan rek moom sax loxo mu njëkk cee jiitu. Mm-hmm. moom le président de la république. bu njëkk cee jiitu moom mënatu ko xanaa kay mu dabu si ndax fa ngeen ko tàmbalee moo sori. yaay fañ ko tàmbalee sori fa ñu tàmbalee daa sori. waaye na dabu si rek moom bu dabu see dana baax. ndimbal dina dabu si <laughs> rek na dabu si rek. kenn. wallaay ndeysaan ndaxte sunu doom waa léegi nii di woote naan ma maman wax bul wax dara dinaa la woowaat. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan wallaahi gis suñu numéro bi rek mu ne maman dinaa la woowaat. léegi ci kanam ñun tamit ñu toog taaxir. ñu di ko mhm. déglu. Mhm. di ñaan yàlla rek lii ñuy sumb nii si jàmm ak salaam rek mhm. yàlla boole nu ñun ñëpp mhm. ak autorité mhm. ñu booloo nekk benn autorité ak euh, ndimbali njaboot ji ñu takkaloo booloo nekk benn est-ce que xam nga ne yaay booy loolu moo war a nekk ndax tey jii yéen yéen a war a doon tànk ñoom seen tànk kilifa yooyu ci biir askan wi te si loolu laa doon ñëw autorité yooyu ma lim yëpp incha allahu rabbi lépp kàddu bu nu teg si si man dinaa doon seen tànk ci biir dëkk fépp fu ma ci yebal mm-hmm. yebal ma fa dinaa fa dem ci ngor ak sutura ak teraanga mm-hmm. def fa lan ma fa sant wax ma fa lan fa sant mm-hmm. ànd ak ñëwaat rendre leen compte macha allah parce que góor ngor a koy fay jàmm jàmm koy fay sutura suturaa koy fay gëm nit ki gëm gëm ko moo koy fay te boo gëmee sa bopp ku la gëm rek di nga ko gëm ndax ñun danoo gëm suñu bopp te wax dëgg neex yàlla xiif taxul nu jug mar taxul nu jug jàppale doomu aadama yi fi xiif ak mar moo tax ñu war a jug ku la fekk fi nga toog xam ne loolu taxul aaj loolu taxumaa <laughs> ndeysaan ndax samay xarit a ngi nii di ma woo barki dee ma ña nga caaral mm-hmm. seen kër yi daa fees ba dañoo génn seen kër yi dem dëkk ji ci kër seen i kër yi seen i kër fi mu ne ay ñoo xam ne dañoo dëkk ci école yi fi mu toll nii ci jamono bi ñu toll ñu ngi dëkk ci école yi mm-hmm. tey jii association bii mm-hmm. bu amee ndimbal boo xamee ne ne dina dem fekk la fa dimbale la jàppale la ba pare jug taxaw nag seetal la kër goo xamee ne ne dina nga fa mën a nekk goo xam ne du taa ba di nga fa mën a nekk di fay sa luwaas normalement mhm. ba boo paanee sa association bi jug dem jàppale la dimbale la mhm. ba fay sa location mhm. sant yàlla loolu nu tax a jug te loolu rek noonu tax a jóg te ñun nag damay ñaan suñu autorité yii ma tudd nii ñu xam ne ne loolu moonu tax a jóg dimbale njaboot ci moonu tax a tey ji autorité buñ koy wax nga nekk ci gox tey ji war nga xam coono gox ba nu ñuy dundee askan wane ca gox ba coono ya ñuy jànkonteel war nga koo xam donte nag tey ji ñoom seen liggéey ak seen xat-xat xat xat-xati jamono mm. mayu leen ñu mën a wàcc ci terrain bi kon dañoo war a seet tey ji yéen ñi nga xamante ni yéenay diriger association yeeg mouvement yeeg yu mel noonu mm-hmm. lëkkaloo ak yéen ngeen doon seen i ndaw doon seen i tànk ci biir gox yi ba ñu mën a xam les vraies réalités euh, yi nga xam ne mooy moo ne ci gox bi tey jug naa fas yéene lëkkaloo mm-hmm. jug seen tànk sama tànk te fu ma teg sama tànk ñu teg fa seen tànk dinañ xam ne ne may man mhm. lu yiw laay dox lu baax laay dox sa doom Balla Gaye mi nga xam mi ngi ci ruq bi te moom itam dëkk ci jëf ju baax moom Baye Fall bi moom léegi fi ne sonal na ma léegi ci suuf ndax xaw xaw na ma fa ñàkkaloo sax fi mu toll moom laa doon jubli si mhm. ak suñu coordinateur des sages mi ngi fi Mamadou Ouli Diallo ndeysaan moom tamit defar lu baax rek la fi nekk mhm. ndaxte y a des sages yoo xam ne ñi ngi fi pension sax am na ko oh. te ñooñu ku leen dimbale macha allah pension amuñu ko liggéey ba retraité amoo sama doom jii toog mën mhm. na ma seede wallaahi may seen secrétaire mhm. pension amuñu ko fi mu nekk nii mhm. wóor na yàlla ne ba ñuy wut euh, bourse familiale yi man mii maa leen wutal bourse familiale te bourse familiale jëriñu dara vingt cinq mille francs tur la rek tur la ñu sante ko bu baax suñu président de la république ndax moo ko fi génne tey jii ba ñoom ñu am man ma wutal leen ci ba nu am mm-hmm. tey jii su ma jógee jug def association dimbal euh, njaboot gi mm-hmm. lu ma leen war a dimbale ma dem jël ko tamit dimbale leen ci mm-hmm. wax dëgg neex yàlla yëf yi day dem ndax góor gi yaafaa mi ngi fi paati suma daabo mi ngi fi bàccali mi ngi fi si soxo mi ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi fi ak ñeneen ak ñeneen mënumaa tudd ñëpp te ñooñu ñëpp wax dëgg neex yàlla ñu bëgg président de la république la te tey jii bu dooleelee association bii ñooñu dootuñu xalaatati dara man seen idole laa man ñooñu ma tudd ñooñu sage yooyu fi nekk man seen idole laa heure bu événement jotee dañu yónnee ci man ne ma lii ak lii lañu bëgg lii ak lii lañu bëgg pandémie bii bi mu commencé man mii damaa dem jox leen ku nekk ay masque jox leen gel jox leen lépp bërki déem boo njaay la ñu yónnee waat ci man ne ma gel bi ma leen joxoon dafa jeex ma jëlaat gel bi ma fi joxoon jox leen kon nag xam nga ni ñooñu ñu ngi leen di jàppale mm-hmm. ñu ngi leen di dimbale à notre propre gré mm-hmm. léegi nag ñu bëgg nag suñu autorité yii mm-hmm. dugg si jàppale nu jàppale nu ba nu xam ne ne autorité yi ñu ngi ñuy jàppale te kon bu keroogee defe naa ne golf gii association bi dina doon fédération lay doon ah ndax loo xam ne doon fondation loo xam ne ci GIE la tàmbalee ah, e ak ay kayitam dem ba doon association dem ba doon association defe naa ne war naa mën a doon fédération wala mouvement bi fi mu nekk mën a jug GIE bi tailleur yéeg yëpp jug si mhm. Balla Gaye mii nekk sama wet mhm. Sa Thiès mii nekk sama wet mhm. wax dëgg neex yàlla foo leen woo ñu wuyu la kon nag defe naa ne bu ma leen woowee ñoom autorité yi dinañ xam ne ne lii nu sumb nii lu am solo la te du ay caaxaan sax te du ay caaxaan te jaamu yàlla pire moo ci jiitu jaamu yàlla pire si ne ndax jaamu yàlla ci biir jaamu préparé di defal suñuy t-shirt te xam nga ni t ku koy dem di ko def léegi foog nga am loolu. Mm-hmm. ah parce que yooyu yooyu yëpp fi ne parce que mouvement bi association bi lancement bi ci lañ toll nii mooy lancer. lancer ko définitivement. parce que fi mu ne nëbbatu gi def ci suuf gi d' accord baax na am na solo. waaye dafa yàgg. dafa yàgg dañoo toll ci nag léegi ñu war koo xam. mu war a mën a am doole joo xam ne tey jii war na ko mën a taxawee ci biir gox bi mu nekk tey jii. kon yàlla na tey jii fi mu toll nii lancement boobu noonu ñu waajal ko defar t-shirt defar carte de membre kenn ku ci nekk itam ñëw indi ci xalaatam indi ci dooleem ngir askan wi mën koo jëriñoo te nag yi kenn jiitu leen ci kenn jiituwu leen ndax ni ma ko waxee léegi nii ba defar ci suñu pancarte bu boo xamee ne ne dañ koy taf fii ci biir golf fii ñëpp xam ne ne association laa mhm. parce que nëbbatuwul mhm. doomu aadama bu jógee sax ba Dakar sax mhm. ñëw war a participer si association bi sax la porte xam association bi dafa garaaw association ndimbali njaboot yi ndimbali njaboot yi ndax boo ni woon njaboot gi benn njaboot ngay dimbali waaye njaboot yi mooy njaboot yi mooy bàyyi woo benn njaboot ki nekk Caaro yi ki nekk Dakar ki nekk Pikine ki nekk Géejawaay ki nekk Thiès bu ko déggee bi bu ñëwee ak i jàngoroom ak i mettitam sax ñu dimbali macha allah ndaxte léegi rek ñaari jongo ma jóge nañ fi mhm. barke jimi rasul la soxna aadama Diouf mhm. numéro téléphone ma ngi nii ma yore mën naa koo génnee léegi lancé ko 76 mhm. la madame Adama Diouf mhm. ak rakkam musu mhm. doomi ndeyam la sax ñoo bokk benn koñ musu ak bu jot mhm. fii la ñëw sama kër maa leen di jox ceeb maa leen di jox suukar maa leen di jox diwlin tey jii bi mu fi ñëwee fekk na loolu yegg seegul dama yëkkati xaalis jox leen ne leen ngeen jàpp sant ma gërëm ma ne ma at bu jot saa yuñ fi ñëwee nga defal ñu lu ñuy defal léeg-léeg damay toog sax ceeb ñëw leen na ñëw ma woo leen ne ko musu wool aadama ne ko ngeen ñëw ngeen jël ci am na lu ñu ci denc muy yële nag mhm. muy lépp mhm. sama armoire mhm. dama koy ubbi yëre yi nga xamee ne ne 2012 la woon 2013 la woon 2014 damay génne yëre yi teg ko te du doon yëre yu bon de yëre yu baax xanaa xanaa ñi la xamul xanaa ñi la xamul waaw <laughs> lii ma sol nii dama see joxe ay mël fa yu bari ku ma ko jox mu ne ma waaye yaay yére bi soloo ko ma ne waa ba si lan dama lay jox lu xotteeku bu ma la ko joxee du am benn njëriñ joxe moom fi ne da joxe lu am njëriñ wax dëgg yàlla mhm. waaw on est là pour aider mhm, mhm. là pour aider les gens et ñëw jàppale ñu autorité yëpp nañ ma ñoom jàppale buñ ma woowee réunion sax naa ñëw dekkal réunion ñoom à huis clos te dinaa leen wax lu nekk sama biir xol yëpp ndax looloo ma tax a jóg ndax yàgg naa koo def mhm. yàgg naa ko def ba daan ko defal sëñ Abdou Karim Mbacke Balaye Sow. ndeysaan borom Makaarimal Axlaaq di tibb di jël glace di ko yenn samay doom di leen ko jox ñu ko yóbbu këram. weeru koor fii golf mhm. maa daan joxe glace. Mhm. weeru koor bii. ci golf bu weeru koor tàmbalaan ba weeru koor bi jeex. samay paanu glace yi dem kër sëñ Abdou sama paanu glace yi dem si Mouride Mbaye jëwriñ. ndeysaan te tey jii. bëkk néegam tey jii bu toggoon fii tey Habib Mbacké mhm. tey mu wax la ay jëwri nañ ci tabaski bi rek bi ñu ñëwee rek mhm. maa leen duyal ku nekk boisson danoo ñëw ne ma yaay de boisson rek ñu manqué ma dem suppe ko vingt mille francs ci boisson laa mhm. jël ay sachet si suppe ko kenn ku ci nekk ma defal la ci sachet daal di yëkkati jox la ko Habib bërki démb fii la toog Habib fii la toog yow xam nga Habib baax abi fii la toog mu ne ma yaay booy boisson bi ba léegi mu ne ko waaye abi bàyyi li ma bi jeexagul ba léegi yaay yaay yaa gore mm-hmm. yaay la nga daan defal sëñ Abdou Karim moom nga ñuy defal tey sëñ Abdou Karim a ngi ndiddi dafa mm-hmm. mel ni sëñ Abdou loo ko daan defal moom nga ñuy defal kon nag ah, nga xam ne ne ñun nëbbatuwuñu làqatuwuñu defuñu ko pour pour que dañ ko def pour doomu aadama yëpp bi mm-hmm. tey bu ma naanee boisson. sekk yow nga naan mhm. boisson kii naan boisson man ne la sa boisson ni nii yëkkati boisson jox ama mhm. jox jayna Jaynaba mhm. jox Ulimata waa daal di jox eh, eh, eh, Fatou Gueye lu ñuy wax jërëjëf ñu tamit jërëjëf boobu la bugg ci autorité yi. ñu jàppale bi am na lu jërëjëf de. mais ñu amaat jërëjëfu. association mu gën a yaatu. ndimbali njaboot gi. ndax ñun njibalewu ñu jaboot yi rek jaboot yi njaboot yi mhm. la mhm. ñu bëgg njibale bu ne woon njaboot gi mhm. ci benn lay yem donc ci benn lay waaye njaboot yi mooy kon ku ne yaa ngi ci biir ku nekk yaa ngi ci biir tey jii ku bëgg a jokkoo ak waa association ban numéro téléphone la mën a jokkoo ak ñoom 78 129 72 39 70 303 11 11 maa ngi Golf Sud 66 E 66 E tout près de Daara sëñ Akim. Mhm. Daara sëñ Akim bi mi ngi fii si ñun. Daara ju yàgg sax day sax. Daara mhm. mi ngi fi. Mhm. Daara ja Daara ya ay kii e, soxna Wali. Badiane Wali mi ngi fii Daara Ousmane mi ngi fi. damay toog léeg-léeg xéewal ñëw. ma jënd sama fukki mburu jënd sama suukar jënd yëpp dem yóbbul leen. te loolu yëpp. pour jàppale njaboot ji rek mhm. parce que njaboot a fa nekk mhm. ay doomi jàmbul ñoo nekk ci biir daara yi te ñun ñii dëkk ak ñoom alentour mhm. ñun kenn ku ci nekk boo daan xëy di yëkkati ñaar téeméer di ko jox sa daara ja xale yi duñu xiif duñu baax looloo ma tax a jóg te daara yooyu bàyyiwu ma leen benn yoon ba léegi lu ma am suba ba ngoon jot yéene naa leen te lu ma am tamit suba ba ngoon jot yéene naa ko goxu te incha allahu rabi. Mhm. taxaw naa si de. taxaw naa si bu baax. di sàkku ndimbal ci sama borom ci barke yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. sama barke baay. Mhm. sama liggéey ndey. di ñaan yàlla rek. Mhm. sama autorité yii yëpp ma woo nii yëpp. samay kóllëre lan. samay xarit lan. samay soppe lan. te xam naa leen bu baax a baax a baax a baax. xam naa leen bu baax. ndax fépp fu nu woo. si seen i réunion seen i comité. ñun dañ fay dem. approuver leen jàppale leen mhm. accueillir leen mhm. nekk ak ñoom ba seen yëf jeex ñu mhm. daal di awaat ñoom jibbisi kon nag yéen ñëpp woo naa leen autorité yi ma tudd yëpp woo naa leen bàyyiwuma kenn incha allah Youssou Ndour sax bàyyiwuma ko bàyyiwuma moo jeen sax bàyyiwuma ko kenn génnu ci rek kenn génnu ci ku am yéene te bëgg a jëf lu baax te bëgg a jëfal jaami yàlla ah. daal yaa ngi ci biir woote bi moom mm-hmm. incha allah dama bëggoon laaj ñaari baat sa doom sa xarit moom mi nga xam ne wax dëgg yàlla moom it luy njëg njàggate luy jàggi tamit moom am na ca wàll mm-hmm. mu wax ma ñaari baat rek ci association bi ak naka la ko gisee fii ci biir golf bi nga xamante ni fi mu fii lañ nekk wax dëgg yàlla ñu door a ñëwaat ci yow door door a jeexal sunu jotaay bi tey ci kàddu askan bi ama nuyu nañ la dellu sant nakay tey alhamdulilah le rappeur de golf waaye te est-ce que tey rappeur bi nga toogee tey fi mu toog nii waaw kaddu rappeur yi mm-hmm. mooy kaddu message. kaddu message. Mhm. mooy li nga xamante ni day métti di ko wax. Mhm. tey man kenn dootuma présenté fii nga xamante ni mooy Golf Sud. Mhm. tey su ma neexee sax ne génn nañ sax dem feneen ak feneen. mais comme euh, nit moom bu nekkee sa koñ. sa gox. nga bëgg ne yow yaa fay représenté. kon maanaam lépp loo xamante ni day métti askanu gox ba. métti li nga xamante ni mooy say mbokk. kon maanaam yow mi nga xamante da ngay toog ci rajo. Mhm. di toog ci télé di toog fépp. Mhm. da nga koo war a mën doon porteur de voix aussi. merci looloo tax ma intégré la ci biir fi mu toll nii nga joxe sa kàddu. parce que dafa am solo. Mhm. merci beaucoup waaw. léegi association bi mooy dimbali njaboot yi. ma ànd ci ak sama yaay bi nga xamante ni tey daf ma woo ci biir. parce que man fu ne laay dugg. waaye li ma ci gën a neex mooy Adja Kine saw ak ki nga xam ne mooy maire Nady Seck mii toog tey maire Nady mii tey moo tax tey ma xam Adja Kine Sow waaye xolam moo rafet mm-hmm. parce que day jàppale ku ne mm-hmm. tey golf fii tey ji lépp lu fi waaye mën a am tey ji ci diggu golf fii nga fi politique wala nga fi def leneen mm-hmm. tey jaar nga ci moom tey moom mii dimbali na kon tey ji moom bu demee ba gëstuwaat ni day dimbali njaboot yi kon ñun ñi nga xamante ni ñooy askan bi ñoo ci war a jug jàppale ci ki nga xamante ni mooy suñu yaay ji baax nga ne mooy Adja Nady Seck ñu ngi wow ñëpp nag. Mhm. man jiitu naa ci. Mhm. Balla Gaye dégg ngi ci biir. Mhm. Sa Thiès ngi ci biir. li ci des nag mooy ngalawaay état bi ngalawaay askan bi. autorité yi ngalawaay autorité yi. bonne volonté dimbali leen nit ñi. dimbali leen ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk. dimbali gi mooy lan mooy association bi nga xamante ni mooy dimbali njaboot yi. te Adja Ndadi Seck jiite ko. nga la waaye dimbali leen ko mu dimbali askan bi parce que léeg-léeg sax day am yëkkati alal jooju nit seetsi ko mhm. donte am na soxla bi da koy yëkkati joxe joxe war parce que yaakaar gi ñuy yaakaar ci moom a tax alhamdulilah alhamdulilah kon maanaam nit boo jëfee loo xamante ni lu baax lu baax la boo lay fekk si mhm. dafa baax tey jii man amul kenn koo xamante ni dafa may présenté fii ci digg Golf mhm. tey moom mu ma njëkk a yëkkati tey biir grand théâtre yëkkati micro jox ma madame président Macky Sall toog loolu saa su ne fu ma mënti toog. Mhm. damay am fierté di ko wax. Alioune Ndady Seck yal na la yàlla fay. parce que li tax ma ne la yàlla fay mooy sa xol dafa rafet. Mhm. parce que loo am bokk nga ko doomu aadama yi. Mhm. ñun ay xale lañ. ay jeunes lañ. ma ne tamit nag maa ngi ci woo ñëpp. di ci gën a soññaat Balla Gaye 2 ak Sa Thiès. ndax moom ak ñoom Alioune bii Balla Gaye 2 ñëpp xam nañ koy ci social. Mm-hmm, mm-hmm. Sa Thiès ñëpp xam nañ koy ci social. ma ne tey su ma amoon. Mm-hmm. wallaay azit dama ko ciy def. waaye ñëpp xam nañ ki nga xamante ni moo fi nekk muy Adja di Seck. ma li ma mën rek mooy ma tey ji ma toog waxtaan ak autorité yi. ñu ñëw dugal seen loxo jàppale askan jàppale Adja Nady Seck jàppale askan bi. allah. jaajëfal ko bu baax a baax euh, message bi am na solo c'est un message fort boo xam ne defe naa ni fi ne daanaka dina insister sa mbokk yi nga xam ne itam ñu ngi ci hip hop bi ñoom it am na ci ay bonne volonté comme ni nga ci nekkee bonne volonté ñoom it dinañ insister mën a gën a ñëw taxaw itam suñu waajur ci biir association bi ak mbooleem soxna yi nga xam ne ànd na ko moom yaay booy tey bu ñu la doon laaj fi ne tey ji daanaka kaddu gu mujj gi ak message bi nga war a lancer tey ji population du ma ne population sénégalaise mais population parce que loo xam ne tey dinañ ko seetaan kon mondialement la ñuy lancer ndax am na nasaraan buy toog fee bëgg fu mu jaamoo yàlla wala fu mu defee lu baax te gisul fan la war a jaar wala xamul fan la war a jaar kon message bi lan lay war a doon ak kàddu yu mujj yi ñu jeexalee ko jotaay bi macha allah. ma dellu si waat rek di yëpp. Mhm. di jullit yëpp. Mhm. di sant bi yëpp. Mhm. balaa may wax sax di santaat nii. nee na defu si dara ama def na ci dara. ci dara ndax war naa indi ay millions yu bëri. nee na defu ci dara waaye def na ci dara ndax ama mhm. may na association bi podium bu neex. est que. keroog la mu am sa podium ba daf koo indi def ko ci biir association bi. kon nag am def na ci dara. Mhm. ndax lu ma ko yóbbu yóbbu yóbbu ànd ak moom. Mhm. yóbbu ko ba ñëpp xamee ko foofu. kon nag wax dëgg neex yàlla bu nee defu ci dara def na ci dara lu mu tuuti tuuti tuuti def na ci dara. ñu wax nag ñépp na bàyyiwul na kenn mhm. international ñëpp la ñu woo mhm. tous les gens internationaux mhm. woo nañ leen fii ba Paris fii ba euh, Amérique fii ba Dubaï fii ba France waaw ñi nga xam ne bonne volonté yëpp ñu ngi nekk ci dëkk bi daal dans tout le monde tiers monde yëpp woo nañ leen bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu dara woo nañu ñëpp ndax danoo bëgg a dimbalee njaboot yi ndaxte boo duggee bu baax a baax a baax gëstu senegal gii am na njaboot yoo xam ne ñu ngi nekk seen mbokk ak seen mettit ak seen i muñ kenn xamalu leen daal gore lool benn yére bi buñ ko solee guddi gi lañ koy fóot bu ñu xëyee suñu sol te mu ngi fi te tey jii ku ñu xëyee dem jàppale leen dimbale leen mm-hmm. dina baax lool te association bi loolu ko tax a jóg may ñaan yàlla nag ñëpp nag jàppale na suñu kàddu yii du kàddu caaxaan du kàddu fo du kàddu bëgg a dara de ndax ñun démb la woon tey doogu ñëw ndax lu ñu commencé woon depuis quatre vingt dix ba léegi lu mm-hmm. du caaxaan te à notre propre gré lan doon demee mm-hmm. tey jii ñuy toog ba wo ba woote ndimbal mm-hmm. kon nga xam ne ne yëf yi na li ñu suñu nekk yàlla évaluation bëgg a yegg ñaar fukki at moom du du du ay caaxaan du ay caaxaan te wax dëgg neex yàlla ñu ngi ci ba léegi bàyyiwuñu ci ba léegi mhm. bàyyiwuñu de ba ci tabaski bii ba ci korite bii rek mhm. ay ndimbal génn na fii sama kër ma jox ko ay doomu am may sant bu baax nag sama borom kër mhm. ndax lépp moom lu na ma ci lu bëree bare bare ndax lépp lu may xëy di def suba ba ngoon jot jox na ma conseil jox na ma xalaat nee na ma toujours looy def rek waxtaanal ak seen nit bokkal ak ñoom kàddu bokk ak ñoom benn euh, euh, trajet. Mhm. bu ko defee ngeen booloo ànd nekk benn. Mhm. moo tax ba léegi ñun ñëpp association bi ñun ñëpp la main dans la main. Mhm. wat gaal ak yëgoo. wat ak yëgoo nii daal la ñu def. kenn ku ci nekk dafa wóolu morom. kenn ku ci nekk dafa jàpp morom. tey jii bu ma la wooloon jey na ba jaawam mu ñëw toog fii tey mhm. dina la wax loo xamee ne ne bi jàkk dana naan déedéet bi ouverture la rek waaye dañuy ñëwaat gën a yaatal tombeeg bureau beeg ñëpp ñëw su ko defee ñu gën a yaatal balaas bi incha allahu rabbi incha allah mhm. booy ñëwaat mhm. jey na ba dina ñëw incha allahu rabbi ndax jey na ba amul fu ma de fu ma fu ma fu ma nekkul ak moom waaw gay original sax ndax moom tamit mi ngi def découverte bu bëri. Mhm. ci parcelle. unité 7. Mhm. ma xam ko bu baax a baax a oh. baax. ñu nit ku baax. Mhm. nit ku yiw. ku baax dafa kàllaaw macha allah. bàyyiwu ma kenn daal. ñi ma woo ñëpp daal. tàllal naa leen loxo. ak ñi nga woowul. ak ñi ma woowul ñi nga xamul ñi ma xamul ñëpp daal ku jot ci vidéo bi daal na xam ne daal loxo yi ubbi ubbi ubbi nañ buntu yëpp ñëpp ubbi nañ daal buntu yi. macha allah naan leen asalaamualeykum. wa rahmatulahi taala wa barakaatu di leen tàllal sama loxo. naan leen bismillah mhm. la porte est ouverte képp ku ñëw rek mhm. dinaa la accueillir mhm. ndax sama numéro téléphone dugal naa ko te dinaa ko waxaat incha allah 78 129 72 39 70 303 11 11 maa ngi nekk Golf Sud 66 1 e. e. bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn te lépp teg naa ko ci loxo sunu borom fokk ñëppoon borom bët bu réy bi mm-hmm. ci barke yonentam bu sedd bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñaan yàlla nag yéen ñëpp nag mm-hmm. ngeen jàppale ma ci ba ànd dox ko nu gën a rafetee ba ñëpp a xam ne ne association dimbale njaboot ji caaxaan leen foo taxu leen a dimbale njaboot ji moo leen a taxu yàgg nañ koo def du tey ci barke salaatu ala nabi ci barke tawakkaltu alallah wala xawla wala xawata illa billahi azim ci barke faqtu iblis wa jamiha mafasidi ci barke laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin ci barke laa ilaha illa anta subhanaka anta rabbi faghfir li inni kuntu min azalimin ci barke barke sallallahu ala muhammadin on vous donne rendez macha allah d'ici peu sant ko gërëm ko bu baax a baax sunu yaay madame la présidente en même temps wax dëgg yàlla amaat mbégte bu baax a baax a baax ci wax dëgg yàlla euh, euh, euh, jotaay bi nga xamante ni consacré na ko pour ñu mën noonu weccoonte ak moom ay kàddu ngir laat ko askanu Sénégal ndax nee naa leen seen jotaay bi mooy jotaayu kàddu askan bi. kaddu askan wi rek ñu yitteel li yitteel askan wi rek ñu jóg ne ci te moom li muy def fi mu toll ni bokk na ci li nga xamante ni macha allah rabbi dafay taxawu askan wi moo taxoon amuñu ci xel ñaar amuñ ci xaar amuñ ci sërëb ma dem ñëw seet si ko waxtaan ak moom li nga xam ne moom lay jànkonteel di ko dund ak gox yi xam ne ñoom ñoo ko wër ci biir njaboot yi saa su ne moo taxoon ñu taxaw teew fi tey sant ko gërëm ko bu baax a baax ñaanal ko yàlla itam suñu borom taxawu ko te gën a guddal fanam gën a wéral cëram mbooleem mébétam ak i bëggam ak i rek yal na yàlla sama borom yeggali lépp te mu yëgale ko sago te nu ànd ko itam ak moom ak mbooleem bonne volonté wala autorité administrative bu fi nekk wala autorité autorité bu mu mën a doon tàllal na la ay loxoom mi ngi lay xaar ngir moom mu mën a doon seeni tànk ci biir askan wi nga xamante ne saa su ne ñi ngi nekk ci ay tolof tolof ñi ngi nekk ci ay gàllankoor ñi ngi nekk ci ay natt yoo xam ne suñu borom moo leen koy tax kon sant leen gërëm leen bu baax a baax sant le grand rappeur